yàlla gis na ne yonent mu oo nit ñi jëmee leen ci yàlla jëmee leen ci li leen lu leen di musal ci safara ëllëg yóbbu leen aljana de waaye gis na ne nit ñaa ngi bañ di fittal di fitt di bañ di fittal yi ko ci kéefër yonent loolu métti na ci xolam yàlla dal di wàcc ci moom alquran ne ko su fekkee li kéefër yooyu def naqadi na la lu mënoo ko muñ demal uti say pexe bopp yow yoo leen dugalee yoo leen dugalee ci diine su rekkee mën ngaa gas ci suuf ba mu xóot nga indi fa laaya wala nga egg asamaan indi leen laaya yu tax yu gëm defal waaye loolu bu ko defoon itam du tax yu gëm de moom la yàlla di wax mu ne innama yastajibu naka dana huyu xoote sa xoote bi ngay woote ñi nga xam ne ñoo koy uyu alladina ñaañaa yasmauna danañu dégg dégg dégg ak xalaat ak dégg ak seetlu rek dégg ci sa nopp rekk taxut nga xam li ngay dégg waaye booy déglu li ngay déglu nga bàyyi ci sa xel di ci xalaat bàyyi ci sa xel di ci xalaat mu ne loolu muy déglu de boo ko defee di nga xam ne di nga di nga dégg li yonent yi di wax de waaye nag su fekkee amoo dégg googu la muy dégg nopp bi di wax rek mu ne bu waa taxut nga am dégg de mu ne wal waaye xéefar ya ñi nga xam ne wedd dinañ yàlla nekk ci bokkale ak yàlla yabasumullahu dana dekkal leen yàlla su ma turjaaw na topp det delloo leen su ma yurjaaw topp delloo leen ilayhi ñu jëm ci yàlla de xéefar <coughs> yàlla nga koy melal ci alxuraan toujours ne ku dee dundut yaram yaramam moo fi nekk di dund rek waaye dund ndax nit mooy lii nit koo xam ne mu ngi dund ak jëmmam jëmm jaa ngi nii taxaw na mu ngi dund jëmm jooju jëmm jaa ngi taxaw na waaye dundut jëmm jooju bu ci roxaw duggee jëmm ji nekk commencé di dund roxaw googu bés boo xamee ne mi ngi ci ci yaramu nit ki nit kaa ngi dund waaye bépp boo xamee nag roxo gi rocceeku na balaa am ñetti fan rekk nga gis mu médd na day di sonnal nit ñi ki gën a baax ci kooku mooy koo xam ne dina ko yóbbu gasal ko suul ko kooku moo gën a baax de ndax roxo ngi woon ci moom roxo gi génn na dee na gannaaw dee na nag suul rek moo ci nekk de nit nag dana dund ba pare roxo gi nekk ci moom waaye xel nekkut ci moom su ko defee ñu ne kii dafa dof ki gën a baax si moom rek moo yóbbu ko fi ñuy fajee dof yi wala xeew ko moo gën a baax si moom de <coughs> su ko defee itam loolu beneen beneen daraja ci nit mooy nit itam dana nekk nekk na roxo gaa ngi ci moom xel maa ci moom euh, nit nekk na roxo gi na waaye xel nekku ci moom nit kooku dafa mel ni koo xam ne am na alal ju bare bari dem di ko denc denc ko foo xam ne ba nga ko dencee fàtte na ko xamatut fooral da nekk mu ne nit ko amit xaritam noonu la mel de nit nit nit nii ci jëmmam lu yàlla seeral la lu yàlla kawel la lu yàlla baaxal la waaye boo amul nag xel moo xam ne moo lay dundal nga xam loolu mën koo jëriñoo kon dafa mel ni nit ku nit ku sànku rek la su ko defee nag moo tax bu ci xel bokkee nag boobu la nit ki di door mat nit ndax mi ngi dund roxoon ci moom am na bu boobaa mu ngi dund mat na nit su fekkee nag roxo ci ngi fi roxo gaa ngi fi yaram waa ngi fi roxo ci xelan ci su ko defee mu des nag gëm yàlla ndax xel moomu nekk na xel mu gëm yàlla wala nekkut xel mu gëm yàlla su fekkee nekk na xel mu gëm yàlla boobu mat na sëkk ndax leer ak yàlla dugg na ci moom mën naa jaar mën na mën na koo jëriñoo su fekkee nag xel manque waaye leer ak yàlla nekku ci mooy misaal ma leen joxoon sànq mu ngi mel ni rek ku am sa koom denc ko fàtte fa nga ko dencoon bon doo xam nit lu muy muy lu lu muy tekki waaye su fekkee yooyu yëpp nit ki mi ngi nii mi ngi dund roxam ci moom xel nekk na ci moom gëm yàlla nekk na ci moom kooku moo tax muy nit ku mag waaye nag su fekkee xéefar la yooyu yëpp daf koy niile moo tax yàlla dafa gis ne xéefar moom di le mu ngi dund sax ci kaw àddina waaye kuy suul la ci biir jëmmam rek du nit dof la du bokk ci nit ñi de moo tax yàlla mu ne wal mawta waaye way we di yàlla xeefar yi yabaasuhumullahu dana dekkal leen yàlla ca àllaaxira su mayu jaamu topp delloo leen ilay jëm si ñoom de xeefar yooyu yëpp ak liñ mën a weddi bala ñoo gëm di laaj ay kawteef ak di laaj ay kéemtaan yoo xam ne dana tax ñu gëm yonent bi loolu kéemtaan yooyu yëpp mooy dëgër bopp rek ak di cuusanteeg yonent bi waaye xam nañ ne kéemtaan ñu indi la ko taxut nga gëm yàlla gëm yàlla moom yàlla moo koy def ci xolu yo xolu ci jaamam yàlla moo koy may jaamam alam nashrah laka sadraka yàlla ubbi sa xol ba nga mën a nangu mën a gëm yàlla rek yàlla soxla loo koo koo xam ne nag sa soxla ci àddina rek la aju amoo jot sax xalaat ndax lii am na lii amut kooku moom soxlawul gëm yàlla yoonam nekku ci moo taxit yàlla téyel ko xolam rek ba du dégg dara ñooñu nag ëllëg ëllëg a ngi ñëw bés ci ngi ñëw ku ci nekk ni nga nekke woon ci àddina bi bu bés penc ñëwee ci noonu ngay dekkee ñi gëm yàlla danañ dekki ci gëm yàlla yàlla ñu ci yàlla boole ñi nga xam ne gëmuñ yàlla danañ dekki ci ñàkk gëm yàlla su ko defee ñooñu itam kenn ku ci nekk nag am nga lay teeru ñëlee gëm yàlla aljannaan leen di teeru ak bànneexi si aljanna yépp mu ngi leen di teeru ñi gëmut yàlla safara mu ngi leen di teeru safara suuf si itam ak la si nekk si ay métit yépp boo demee mu ngi leen di teeru de loolu yàlla nga koy àggali ak jaam yi bés penc de waaye fii si àddina moom yàlla gënalu kenn ci kaw kenn ci ay ci ay wërsëgam wërsëgu ñëpp a ko bokk jullit laa taxut nga am ci àddina lu xéefar mënta am jullit laa taxul nga mën a nekk ci àddina foo xam ne effort nu faa nekk yàlla moom xoolul loolu mooy borom wërsëg mooy may nii mooy may jaamam yi wërsëg moo fi indi jaam yi bon jaam yëpp lay boole may ci wërsëg may wërsëg de su ko defee nag jaam yaa ngi wuutee ci wërsëg woowu nañ koy nangoo am na ñoo xam ne wërsëg woowu dañoo gis ne seeni pexe la rek ñoo fexe ba àgg ci bon yoonu yàlla nekku ci ñooñu ñoo seeni wërsëg alkara rek comme li da li daloon xaaroona innama utituhu ala ilmin indi moom la waxoon li ma am nii sama xelal rek ak suma xam-xam moomu ko may waxu génn ci yàlla moo tax ba yàlla di fayu ci moom daf koo fa xasaf naa bii wa bi dee ngir arda mook alalam yépp yàlla nuural ko ci kaw suuf bon nit moom man-manam kattanam yépp c'est limité li koy àggali yàlla moo ko koy àggali nag su fekkee kuy ut alal la mu am yéene am dogu am bëgg-bëgg taxaw ci yàlla su ko ni koo yàlla ñaan ci yàlla yàlla mën na koo may wërsëg mën na koo ubbil su fekkee defoo noonu itam wërsëg yàlla bi moom kenn moomu ko yàlla jagalewu ko julli ñi bàyyi xéefar yi ñëpp ñoo ko ñoo ko bokk ñëpp ñoo koy mën a ñoo ko ñoo ko bokk kenn ku nekk nag sa kemb góorgóorlu rek la la yàlla di maye de wërsëg yi wërsëg yi àddina yi nag bi ci gën a dëgër mooy wërsëgu gëm yàlla bu la ko yàlla mayee may na la lu nekk ndax lépp loo xam ne ut nga ko ci àddina am ko nga wax alhamdulillah lépp loo xam ne ut nga ko ci àddina amoo ko li ngay gëm mooy mooy musiba mu la yàlla teggil rek la waaye doo ci nekk di mer de uteeg nag yi nga xam ne gëmuñ yàlla ñoom buñ utee amut amuñ li ñuy def rek seen pexe mooy nañ xaru dee génn ci àddina bi de loolu ndax gëmuñ yàlla ku yàlla may gëm yàlla nag may na la wërsëg woo xam ne wërsëg wu lay dimbale la wërsëg wu lay xaat la wërsëg woo xam ne mën naa dana ànd ak yow ba ci sa bàmmeel ba ci aljanna rek ku amul wërsëg woowu nag lu sa wërsëgi àddina bëri bëri lii rek moo ciy xew yaa imma lim bëri bëri bëri bés ñëw mu tasaaroo bi setoo ci amatoo ci dara nga mujj amoon ba mu yàgg nga ñàkk ba amatoo dara musiba la wala boo am nga ba mu bëri dee ñëw nga dee bu boobaa la doon dajale yëpp moom moo ko ñeneen nga ko doon dajaleel de wala nga nekk fi sax waaye màggat sa yaram nag dal ñëw tànk yi di métti bopp bi di métti eh, tension bi diabète bi yépp ñëw ci yow nga xam ne alal ji yépp faju rek moom ko ci soxla loo fajoo rek moom nga ci soxlaa de bu boobaa itam eh, alal ji bëri na waaye nekkee woog moom mbenn nekkin loo xam ne dina la neex de ndax xëy xëy docteur yi ñu lay wax defal nii bu lekk lii génnal fii deel dox nii deel toog fii loolu yépp docteur yi ñooy ñëw di la conditionné ci sa dund loolu itam ku ne xam ne ne taxut nit bëgg alal de waqaalu ñu wax ñoom xeefari màkka yi ngir jéej ji muhammad lawla unzila te wàcce fee alay ci moom ayatun kawteef min rabbi mu tukkee ci boromam mooy yo xeefari màkka yi nag di tàmbali di yéej ji muhammad moo yonent bii ne yonent la lu tax yàlla wàccewut ci moom kawteef comme ni nga ko daan wàccee ci yonent yu njëkk ya yonent yu njëkk yi yàlla daana leen jox ay kawtéef comme yonent yàlla Moussa yàlla joxoon na ko loxoom bu ko dugalee génne rek mu leer nañ mel weex tal yàlla joxoon na ko et woo xam ne bu sànnee mu doon jaan bu téyee mu seppeeku et yonent yàlla Isaa yàlla mayoon na ko kayfa tuhyil mawtaa ku dee mën na laa dekkal yàlla mayoon na ko yonent yàlla Moussa yonent yàlla Saalew yàlla mayoon na ko nagoo ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yàlla jox na la ay kéemtaan yoo xam ne ci la yonent yi bi jaaree gëm wala jaar weddi de te li gën a bëri boo laajee kéemtaan la ñëw itam du tax nga gëm da ngay moo tax yëfari màkk yaa ngi nii di laaj yonent yàlla Muhammad kéemtaan andil ñu kéemtaan bu mel ni lii yonent yi daan indi seen nit ñi waaye dañu la dañu laaj kéemtaan waaye xamuñ kéemtaan kéemtaan bi yonent indi moo gën a màgg kéemtaan bi nga xam ne ñoom moom lañ bëgg a gis de ndax kéemtaan yonent bi mooy lan yonent yee de ba ñëwee ku ci nekk aw xeet nga amee aw ko ñii xeet lañ ame ñii jileem ñii eh, nga dem eh, ëf ëf xeer mu naaw loolu yëpp mënuñoo tegtal nit fu mu war a jaar ay kéemtaan lañ mais yoon wu ñuy tëral la nit ñi pour ñu jaar ko loolu nekk ci kéemtaan yooyu bon nag ki nga xam ne indi na la kéemtaan goo xam ne daf lay tegtalal jox la yoon woo xam ne ci nga war a jaar loolu boo demee mooy yooyu kéemtaan yoonu Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te de alquran téere manhaj la téere méthode la dafay jaarak ak nit fi mu a jaar moom jaar moom ci yoon xamal ko lan mooy yoon eh, toppatoo nitam gi toppatoo niteem gi toppatoo ko lu nekk loolu moo gën a doon kéemtaan ci kéemtaan yi nga xam ne ay ay ay dojaki ay kii rek la ndax kéemtaan yooyu kenn gisatu leen dañuy nettali rek ne yonent yàlla Moussa defoon na nii nii nii ay nettali rek moo ci des kéemtaan yonent yàlla Muhammad nekk mooy alxuraan ji te ba léegi alxuraan mu indi ay kéemtaan ndax ba léegi ci jamono yi nit ñu tuddee ay borom xam-xam ay scientifique ay nangam ak nangam léegi-léeg nga gis ci ñoom ku kawe kawe ci xam-xam ba mu yàgg rek mu tas rek alxuraan rek gis loo xam ne foogoon na ne loolu mënta nekk ci alxuraan de fekk am na ci alxuraan lu mat te junne at ak ñeenti téeméeri at ba pare ñoom dañu mujj di tuub de di tuub di dellu ci yàlla di tuub di nangul yàlla te ay yéefar yu mag lañ tàmbalee woon de loolu kéemtaan la boo xam ne ba léegi kéemtaan googu mu ngi dox de bon nag ñii laaj kéemtaan te xamuñ luñ ke xamuñ xamuñ luy luy luy kéemtaan luy ñii laaj moo gise te xamuñ ko ñooñu dañuy laaj rek eh, ci euh, éphémère rek dañuy laaje laajuñ loo xam ne lu dëggu la lu xóot la dañuy loo xam ne dañ koy gis seeni bët rek loolu la waaye kéemtaan bi nga xam ne nag dafa ànd ak jamono ànd ak xol ànd ak roxo ba léegi di mën a soppi nit ñi di leen jëlee ci leen nekkoon indi leen ci téere bi loolu mooy kéemtaan bu gën a màgg ba pare nag teg ci jamono yoo nga xam ne ngi koy wàcc ci nit ñi jamono yooyu dañ ko wàcc ci ay nit ñoo xam ne wax la ñuy tiitaroo wax mu fasaa wax mu ñor xom wax mu dëgër wax mu fees nopp fees xol boobu loolu lañ daan tiitaroo ku la dàq wax rek moo la gën a nekk sang moo tax ba nga xam ne euh, seen jamono ñoom ñooña famille bu ci amul wëykat boo xam ne dafay dafay sadd ay wëy famille boobu matagut waaye boo amee sa famille ku lay saddal ay wëy rek bokk nga ci famille yi kawe yi bu ko defee ñoom loolu lañ naan tiitaroo de wax ju mat sëkk wax ju doy wax ju am balaaxa am ju am fasaaxa wax ju fasu moom lañ daan tiitaroo de ba mu ko defee nag yàlla indi leen alquran yoo xam ne àgg na ci fasaaxa ak fasu ak ñor foo xam ne seen wax yooyu àggu fa de ba pare nag dañ leen jalgati su ngeen mënee wax lii indi leen ko su ngeen ko mënee indi leen ko su ngeen mënee benn laaya indi leen su ngeen mënee fukki laaya indi leen lu ngeen mën rek loo xam ne dana méngoo ak alxuraan ci ci mat def leen jalgati leen ko te mënuñ ci dara danga nga xamee ne nag loolu jalgati na leen te mënuñ ci dara ñu dal di dem rek jëli ay jaas yi commencé di xeex ak yoonante de naan ko doo ko fi waxee waaye du tere dana ko fa waxee de moo tax laaj kéemtaan mën naa ñëw yàlla defal la nga gëm waaye laaj kéemtaan boo ko laajee ba mu ñëw te gëmoo xal xalkale rek mu la cay fekk de moo tax yàlla ne xul waxal ne inna laa naka yàlla xaadirun aji attan la mu ala ñu ne si dagum wàccaat ayatan kawteef comme ni ñu ko bëggee de su neexoon yàlla yàlla mën na leen a indil kawteef comme ñu ko bëggee wala kenn du fi nekk ak sa rawum gën jaabal seen la yàlla moo na xamuñ ne wàcceg wàcceg wàcceg kéemtaan yooyu musiba la ci ñoom de ndax duñ gëm te buñ gëmut buñ dee dem safara de loolu moo indi xeefar yi ak ak yi ak laajkat yi kéemtaan laajkat yi kéemtaan yi foo leen fekk rek buñ laajee kéemtaan bañ indil leen ko lim leen di indil daf leen di indil ay reetaan rek ak caaxaan da leen di yokk waaye nag te loolu du mooy jubal nit mooy taxa nit jub nit li koy jubal dëgg-dëgg mooy yàlla wax na ko wax na ko yonent yàlla muhammad li gën a kawe ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yashaa yow mënoo jubal kenn man yàlla rek may jubal ku ma soob de yàlla ñu yàlla jubal te boole ñu fii ñem soob loolu la bon nag laaj kéemtaan du dara mënta dolli dara doomu aadama de ci gëmam ak ñàkk gëmam wa maa min daabatin déet aji yukkat joj dana mu yukkat joj dana mu dox fil ci suuf wala taa'irin du tàggan aji naaw njanaaw yatiiru joj dana mu naaw bi janaaxay ci ñaari mbagam illaa umamun dara ay lañu am saalukum yu lekkem seen de mu ne yàlla mu ne amul dara luy yukkat ci kaw suuf wala luy ñaaw ci kaw asamaan si lu dul rek ay xeet lañ comme ñun ay xeet yu yàlla bind na rek comme ñun yàlla bind na leen ñu nekk ay xeet yoo xam ne lépp loo xam ne mooy doxal aw xeet mi ci ñoom ñooñu nag seen seen dund seen alaxira jaaxal yi ni nekkee fii nekkee nañ fii daanaka nit nit ñi nekkee rek di tooñante di defante di defante ñu ngi ci loolu su ko defee nag yàlla bind na ku nekk rek la nga xam ne moom nga tooñ ci àddina bu bés penc ñëwee noonu lañ la koy fayee mu ne moo tax malaaka ki njaal yi buñ demee ganaar gu amut gu amut karaw ganaar gu am karaw cop ko eh, ku amut béjjën borom jën eh, mbëkk la ku amut ay tànk yoo mën a dawee ku am tànk loolu yépp ñu ñu koy ñuy toolante ci seen biir bu yow ma xiyaamati jógee jotee ñoom ñëpp yàlla daf leen di dajale ku mos a tooñ sa morom rek ku mën a cob sa morom ñu daan ku mos a cob sa morom rek ñu ne acca fayul ku mos a mbëkk sa morom ñu ne acca fayul ku mos a def dara sa morom ci kaw tooñ rek ñu ne la sa fayul nga daal di fayu ñoom ñëpp buñ fayoo ba nga xam ne jeexal nañ ka am na te kenn àq yàlla ne leen soppeeku leen nag yéen ñëpp doon suuf de moo tax bés leen ci da nga gis yahudi eh, xéefar yi ñoom tamit bu yëf yattatee lool ñuy ñaan yàlla naan yàlla te nii kuntu turaban aka neexoon ma doon suuf comme malak comme ni ko njaaxal yi de waaye doo ko doon de mu ne loolu mooy indi ne xeet yooyu yëpp ñoom tamit ay xeet lañ comme yoom ñoo xam ne ñu ngi jaamu yàlla ñu leen ko yàlla sante niñ ko waxee woon démb yu sabbihuna walakin la tafqahuna tasbihahum ñu ngi sàbbal yàlla ñu ñu ngi ñu ngi sàbbal yàlla ñu ngi topp yàlla ni leen ko yàlla sante ku ci nekk rek li la yàlla tëralal ne lii mooy sa jaamu yàlla ci nga nekk jant bi musta jàdd yoonam weer wi musta jàdd yoonam guddi musta tarde bëccëg musta tarde lu ci nekk rek bu waxtoom jotee mu def la ko yàlla sant génn ci su ko defee nag euh, ñoom ñëpp ànd nañ ci mën a sàbbal yàlla sàbbal boo xam ne nag nee na walakin laa tafqahuuna tasbihahum ñoom ni ñuy sàbbaalee yéen nit ñi xamu ko waaye ñoom ñu ngi sàbbaal yàlla de moo tax yàlla mu ne illaa umamun ndare aw xeet la jëm saalukum yi kem seen ñoom ñëpp ay xeet lañ kom yéen de maa farat naa bay wuñu ca lawxel mahfuus noonu de maa farat naa bay wuñu fil kitaabi ci lawxel mahfuus min shay'in dara ah, lu bind nañ ko de lépp loo xam ne yàlla nar na koo amal amal na ko nar na ko yàlla amal na ko wala nar na koo amal yépp yàlla bind na ko ci téere boobu ñuy wax la lawhul mahfuus de téere boo xam ne lu ci xas bindu rek dootu faas de summa turja'uuna summa yuhsharuuna topp xal naa fangaleen nag ilaa rabbihim ñu jëm ci borom seen de ñoom nit ñëpp mbindeef yi ci kaw suuf yëpp yàlla dina leen rey dina leen dekkal dina leen fang ëllëg ci ca ca bés penc de waaye wala dina ñaaña kaza bu wét nañu ba ayaatinaa ci alquran sunu ñi nga xam ne nag dañoo weddi alquran ñooñu ñooy ñan mooy summun ñoom way tax lañu walis dégg-dégg mënu dégg-dégg ba di ko nangu de ndax dégguñ ko seen nopp yaa ngi dégg rek mais li ñuy dégg xamuñ ko bukk mun way way luu lañu mënuñoo wax de boo gisee doomu aadama ci dégg lay lay xamee ci dégg lay xamee dafay dégg ba pare xel mi doon a dugg firil ko lim dégg gis nga fi nekk nii boo jëloon xale bu judd nii rek nga yóbbu ko Amérique du la américain yi bu màggee la américain yi di wax rek lay wax ndax loolu la dégg moom la dégg moom la xam ak lu doon doon olof ay waajuram dëkk fii ci kaw la boo ko yóbboo rek bu màggee lam dégg ñuy wax rek loolu lay wax ndax loolu la foofu la xam-xam di jógee xam-xam mi ngi jógee ci dégg su ko defee itam nit ku nit nit li muy dégg ci loolu loolu lay mën a wax su fekkee déggut dara du mën a wax dara li nga déggut mënoo see wax dara li nga dégg rek ci nga ci ci nga mën a wax waaye li nga déggut mënoo see wax dara su ko defee moo tax yàlla toujours buy wax dégg lay njëkk a wax doola teg leneen lu mu ciy teg bu ko defee nag boo déggee di nga xam li ñuy wax boo sa doom bu juddoo ci sa biir li muy dégg baayam ak yaayam di wax rek bu màggee loolu lay wax li dégg environnement am di wax rek bu boobaa loolu lay wax fuñ ko mënta yóbbu mu màggee fa itam bu demee waa foofa rek la ñuy wax loolu lay wax parce que moom la dégg moom la xam nit li dégg loolu lay xam boo dégg doo xam de moo tax dégg mooy njël benn buntu xam-xam boo déggee nag boole ci am xel boole ci jàng bu boobaa nag xam-xam ngi gën a ubbeeku di gën a yaa ci sa kanam waaye nag su fekkee dégg amut kenn mënuta kenn mënu koo waxloo de kenn mënu koo wax loo loo xam ne déggu ko nit koo xam ne eh, dund na taxut dem ba ci kanam tax dab ko mu tax bu ko defee lam daan dégg ci loolu rek la mën a wax waaye leen mënu koo wax parce que déggu ko déggut fu wax bi toll xamul ci dara mënu koo wax parce que déggu ko lim déggoon rek foofu mu tolloon foofu rek la foofu foofu rek la waxam toll foofu la xam-xamam toll munu cee yokk leneen de ndax li ko koy yokkal amu ko mooy mu dégg te amul dégguwaay waaye su fekkee nag nit màgg na nit judd na tex e, e, e, lu tex kenn mu ko boole ci nit ñi ndax bokkut ndax mënta wax ak ñoom mënta communiquer ak ñoom lu dul ay façon yoo xam ne façon ay junj ak yooyu rek la ci la mën a déggee ñoom de ndax déggut ku déggut mënoo mënoo firi boo déggut mënoo firi boo su ko defee nag bon dégg mooy buntu xam-xam de waaye boo déggee boo déggut nag teg ci boo boole koog luu teg ci bu ko defee da ngay gën a dal di réer rek xéefar nag loolu moo ko dal déggul li ko yàlla di wax ndax amul déggukaay xamut tam noppi déggu déggut ah, mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi luu mi ngi tëx mi ngi luu ndax mënta dégg dëgg mënta wax dégg ndax boo déggu dëgg mënoo koo wax boo déggu dara mënoo ko wax ñoom itam loolu moo leen dal de dégguñ moo tax mënuñoo wax dara mënuñoo wax dëgg <coughs> mënuñoo wax dëgg de seeni caaxaan yooyu rek ci lañ nekk de fi zulumaat yi way nekk lañu ci lëndami kéefër ñoom dañoo nekk ci lëndami kéefër de man yasha illaahu ku soob na yàlla ak réeralam yudlilhu mu réeral ko de képp koo xam ne soob na yàlla mu réeral ko kooku dafay réer kenn mënu koo bu mu defar ko ala salaatin ci yoon mustaqimin daa ji jub kooku itam yàlla dana ko defal loolu de moo tax mbir yëpp ci loxo yàlla rek la nekk nekkul ci loxo keneen yàlla mooy jubal kum neex mu jubal la yàlla mooy réeral kum neex mu mu réeral la de boo demee ci eh, taarix da nga gis ne ay doomi yonent yàlla réeral na leen comme doomi yonent yàlla noox yàlla réeral na ko jabari ay yonent yàlla réeral na leen wax ba xamuñ mënuñoo topp ak ak lu bëree bëri ci taarix loo xam ne doomi nit ñu baax kawe ci ci diine ak xam-xam ak kawe seeni doom ñëw mel ne neen nga xam ne dafa mel ni ñoo seen baay bokku yoon mu ñu jógee loolu yëpp mu ngi am ci taarix mi ngi am am na ci taarix te mi ngi am ba léegi mu ne moo tax yàlla mooy jubal ku mu bëgg a jubal mooy réeral ku mën a réeral ka muy jubal nag ak ka réeral moom kenn tànnalu ko jubbantil kii kenn tànnalu ko moom mooy def man yësha mooy def rek ci coobaram de ala siraatin ci yoon mustaqim nu daa ji jub de ku neex nag mu teg la ci yoon boo xam ne yoonu jub la de qul araytu qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam araytukum leen ma in ataakum ndem dikkal neen dikkal na leen azabullahi mbugalam yàlla fii ci àddina aw atatkum ikki dikkal leen saa ci pencam baxtatan ci betteel ak xayrallaahi ndax ku dumu yàlla te du na ngeen di xoo in dem nekk ngeen saadiqiina di way dëggal de mu ne waaye yéen nit ñi yonent mu ne moom la yàlla wax na ko laajat nit ñi su fekkee ne musiba dal na leen dëgg-dëgg loo xam ne métti na ci yéen bu boobaa ci ngeen ci ku ngeen di jublu ngir ñaan ko mu teggal leen musiba boobu buñ tontu itam xamal ne rek yàlla rek lañ mën a yàlla rek lañ mën a ñaan de su fekkee ndax yàlla buntu yàlla ubbi na buntu ñaanam pour mbooleem mbindeefam yépp jullit xéefar ak yépp yàlla ubbi na leen buntu ñaan de bu buñ ko ñaanee dig na leen ne dana leen nangul seen ñaan su fekkoon ne yàlla dafa am ñun tànn nit ñi ñoo ko war a ñaan bon iblis ba muy ñaan yàlla dafa du du am kum ñaan de waaye yàlla xam na ne yàlla ubbi na buntu ñaanam pour yépp iblis ñaan yàlla yàlla may ko ko ñaan naka noonu ñaan ñu bari ñaan nañ yàlla yàlla may leen liñ bëgg te fekk nekkuñ ci diine yoo xam ne diine asamaan la ñu ngi ci seen diine ñu ngi seen yëfi bopp de bon nag ñaan buntu la boo xam ne yàlla ubbi na ko pour jaam yëpp kum kum neex nga ñaan waxtu wala neexee nga ñaan yàlla bu njëkk am na ay jamono yoo xam ne jamono yonent yi weesu woon ñoom daaw ñemee ñaan yàlla directement dañuy ñëw ci seen yonent yi ne leen ñaanal ñu yàlla bu ko defee yonent yi leen waaye yonent yàlla Muhammad nag moom yàlla teggil na xeetam loolu waxtu woo bëggee rek ñaanal yàlla foo ci nekk ak ci loo ci nekk rek bu mu la teree taxaw ñemee ñaan yàlla ñaan leen yàlla bu ngeen ñaan yàlla yàlla may leen de bu leen xeeb bu kenn xeeb boppam ba ne man ñemewumaa ñaan yàlla bu kenn suufeel boppam ba mu wax ne ñemewumaa taxaw ci kanam yàlla di ñaan ñëpp nañ ñaan yàlla ku bëgg ku am soxla rek ñaanal yàlla ndax yàlla wax nañu ci alquran yaa ibadiya lazina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillahi yéen yéen jaam yi nga xam ne yàq ngeen seen bopp ba óolootu leen seen bopp mu ne loolu bu leen naa bu mu leen naaguloo ci man de ñëw leen rek waxtu wu ngeen ñëwee ci man da ngeen fekk borom boo xam ne borom bu am yërmande la te dina leen yërëm de bon nag ñaan buntu la boo xam ne yàlla ubbi ko pour mbooleem jaam pour mbooleem jaamam yi ak wépp ak be waxtu bu nekk amul benn waxtu boo xam ne mun wax ne waxtu bi kenn du ci ñaan yàlla waxtu wu nekk rek ñaanal yàlla de bon nag gannaaw amu leen ku ngeen oo ko dul yàlla bon nag saa ngeen a dëggal gëm yonent yàlla muhammad waaye su dara xewee yàlla ngeen di ñaan bu ñu eh, ikrimatu ibnu abi jahlin gannaaw fatxu makkata dafa ànd ak ay nit ñu ne dañuy gàddaay màkka daal ñun daal duñ nekk màkka goo xam ne yonente koy ilif léegi dañuy génn màkka rek dem seen yoon bañ demee dugg géej dugg gaal bañ demee ba ci digg géej ga gaal gi yëngatu lool ba ñoom ñëpp ñu tiit Ikrimatu wax ne yow yàlla boo ñu musalee ci gaal gi man bu ma demee dinaa jaayanteeg yonente de yàlla musal leen Ikrimatu dal di ñëw dal di ñëw ci yonente dal di gëm dal di gëm dal di wax ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah am na ñoo xam ne nag lu mel noonu gaar la leen waaye bañ wàccee rek dañoo gën a nuur ci seen kéefër ndax ku yàlla wëcc yàlla moo la wëcc ku yàlla téye itam yàlla moo la téye de Ikrimata moom bi muy tuub yonent dafa toog benn dafa benn rek muy mu ne kéemtaan naan déedéet loolu mënta am loolu mënta am loolu mënta am ñu ne ko sang bi lu xew mu ne doo aboo jaal ci biir aljanna aboo jaal laa gis biir biir aljanna loolu mënta am de di muy wax mënta am mënta am rek doomu Abu Jahl ñëw ne ko ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah moo xam ne loolu la gisoon de a xayrallaahi ak ku dumu yàlla tad'uuna ngeen di xoo in kuntum dem nekk ngeen saadiq koy na di boy dëggal de ne seen xërëm yi leen benn njëriñ bu ngeen xamee ne seen xërëm yi amaluñu leen benn njëriñ bon bu musiba ñëwee yàlla rek ngeen di mën a oode bal bàyyi di yaahu moom daal ngeen taddoona ngeen di xoo de musiba mu ñëwee lu dëgër dëgër dëgër da ngeen di fàtte seen këram yi yéen ñëpp rek xoo yàlla ñaan yàlla yàlla moo leen ko yëkkatil de fa yëg si futa muñ ñi maa taddoona da dangeen oo koy day jëm ci moom bon li ngeen jaaxle woon ba tiit bay tax nga jublu ci ba ba ba di ko ñaan yàlla dina leen teggi loolu leen jaaxaloon de <coughs> waxtaan saw na ngeen di bayi nag maa tushrikuuna la da ngeen bokkaale koo moom de bu boobaa la ngeen doon bokkaale ak yàlla yépp di ngeen xam ne mënuñ dara ci yàlla rek ngeen di jublu de wax na loolu loolu yépp mu koy nettali ngir dalal yonent yàlla muhammad ak ngir jàngal nit ñi ba tey saaru màkka waxtu wu nekk danañ ci nettali xabaaru ñi weesu woon danañ ci nettali xabaaru safara ak aljanna danañ ci nettali xabaaru eh, xeefar yi xeefar yi nga xam ne dañoo weddi dinañ ci nettali tam mbugal mi nga xam ne moo leen di xaar buñ saxee ci seen weddi googu de mu ngi mu ngi ñëw ci yonent di ko nettalihaat wala qad arsalna ñun de yónni nañu ilaa umamin jëm ci xeet dañ xable ko ci njëkk sa yónnee naa yónnee woon naa ci xeet yu njëkk yi yónnee woon naa ci ñoom ay yonant waaye bañ nañ leen yónnee ñu weddi ñoom ñu weddi seeni yonant fa axas naa moom ñu jàpp leen ñoom ñooña bil ba saay ci tat ci tatak ci tatak ñàkk wa daraay ak tatak feebar de mu ne ba nga xamee ne weddi nañ seen yonent yi yàlla fayu ci ñoom indi leen mbugal moo xam ne mbugalam mbugalam ñàkk ñàkk ñu ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ba amatuñ lu lekk ak itam indi leen feebar yoo xam ne xamuñ fu feebar yi bàyyeekoo de loolu mooy moom la leen yàlla mbugalee di mbugalee nit ñi di mbugalee xeet yi ay loo xam ne musuñ koo xam musuñ koo gis indi leen feebar boo xam ne mosuñ koo xam mosuñ koo gis mu mosuñoo xam nuñ ko fajee loolu yëpp boo ko seetloo boo boo demee rek seetlul fam ko wàcce nañuy doxalee ak lan la lu xew luñ soppi ndax dañoo soppi manhaj bi nga xam ne yoon wi nga xam ne moom la leen yàlla tëralal ne leen jaar leen ci yoon wi ndax ngeen musal seen bopp ci tawaare yi nga xam ne mi ngi xew ci àddina bi bu ngeen jaaree bu ngeen jaaree nii da ngeen ci mucc de ndax képp koo xam ne liggéey na dara lu baax ala fokk mu defaral ko loo xam ne moo koy musal ci yàqu moo koy musal itam ci euh, moo koy musal ci yàqu mu yàqu wala bu yàqoo itam mën nañ koo defar koo gis mu liggéey machine rek am mu ngi ànd ak loolu loo xam ne bu machine bi yàqoo mën nañ koo defar loo xam ne itam boo ko defee machine bi du gaaw a yàqu yàlla yitam moo bind jaamam defal na ko defal na ko loolu may na ko loo xam ne moom lay aaree boppam li muy aaree boppam mooy li nga xam ne yàlla tëral na ko ne ko jaaral fii boo fi jaaree rek fa nga xam ne loo fay taseet yërmande yàlla rek ndax yàlla moo la jaarloo foofu bon yàlla moomu di la jaarloo foofu mu ngi la mu ngi la fa tegal ay garde yoo xam ne gisoo leen te yow la ñuy garde de garde garde yooyu nag mën nañoo nekk fu nekk ci yow nekk ci sa biir yaram nekk ci sa bët nekk ci sa deret nekk ci sa lu nekk ndax ñoom jaaral na nga leen fan leen war a jaarale bu ko defee ñoom tamit ñu ngi ànd ak yow di la garde de su fekkee nag amoo loolu lu nekk mën naa ñëw sonnal la lu nekk mën naa ñëw alal la de ndax allahum ndaxte la ñoom it dara woon ñu dellu ba ñu toroxlu la yàlla de yàlla bu leen tegee musiba moomu indi leen natt yooyu ndax lan ndax ñu mën a tuub nag dellu ci yàlla bu ñu delloo ci yàlla rek yàlla yëkkati leen musiba moomu nga xam ne teg na leen ko falawlaa iz jaahum doonte kon dikkanoo leen ba sunaa am mbugal sunu te dara ñu torox lu yàlla de lu tax ba nga xamee ne toog nañ ba sama mbugal wàcc na ci ñoom lu tee ñu torox nag jëm ci yàlla gis nga yàlla yërmandeem di leen mbugal mi wàcc wàcc na waaye boo toroxloo dellu ci yàlla rek yàlla dal lay fekk si dal lay dal lay yëkkatil mbugal waaye nag ba mbugal mi wàccee sax xéefar lañ ba nga xam ne nangu ñoo def loolu de walakin lu fi nekk xasat xiis na xuloo bu bàyyi xol seen dem nañ foo xam ne seen xol yi xiis na ba nga xam ne mënatuñoo gëm yàlla de wa zayyana rafetal la wum ñaan leen seytaanu seytaane maakaanu lañ nekkoon yaamalu na di jëf ko su ko defee nag lu ñuy def li leen seytaane rafetalal rek doomu aadama yàlla bind na ko may na ko teraanga bu nekk teraanga bu nekk yàlla may na ko doomu aadama taraangaay amal ko taraangaay bala koo amal fi mu koy indi lépp loo xam ne ma ko fa war a soxla defal na ko ko fa defal ko yeneeni yeneeni bindeef yoo xam ne dañoo nekk ci service su doomu aadama li yàlla bind yëpp ci biir àddina bi ñuy dund yëpp yàlla daf koo wax ne dama laa tàggat ngir doomu aadama wa saxara lakumul layla wa nahaara wa shamsa wal qamara ba pare wa nujumu musaxaraatun bi amrihi loolu yépp ngir yombalal doomu aadama nekkam fii ci àddina su fekkoon ne yàlla defalal ñu yàlla defal ñu loolu tàggatal ñu yëf dëgg-dëgg nag nag mu am doole mii foo koy jaar su fekkoon ne yàlla tàggatul ko giléem ji foo koy jaar su fekkoon ne yàlla tàggatul ko pour yow loolu yépp suuf si ngay dox bu ko yàlla tàggatutoon mu yëngatu ci sa suuf ci sa ron kan moo la koy tàggatal yooyu yépp yàlla moo la ko defal tàggatal la yépp ngir lan nga mun a nekk ci àddina bi nekkin boo xam ne nekk bu bu jaam bu bu bu bu jaam bu jaamu la de waaye nag doomu aadama noonu ko yàlla mayee wërsëg yooyu yëpp noonu la ko maye loolu la ko booleeg itam ab noon boo xam ne dafa noonu doomu aadama inna shaytaana lakum aduwun fattaxizuhu aduwan seytaane seen noon la jàpp leen ko muy seen noon du seen xarit ak lu mu rafetal rafetalal yóbbu la safara rek comme moom loolu la bëgg su ko defee nag am na ay rafetalam am na ay neexalam yoo xam ne néew na bakkan bu yàlla dimbalewut nga mucc ci de nga mucc ci pexey seytaane nga bu ko defee nag moo tax yàlla mu ne seytaane mooy rafetalal doomu aadama yi ay caaxaan yi nga xam ne moom la def de fala maana su ba ñu bayee ñoom mindee fii ma zukiru la na leen bii ak moom ci métit ak ci ay ci ay ñàkk ak ci ay feebar ak te waajooñ fa tax naa ñu hubbi aleyhim ci ñoom ab waa ba kulli seen bunta lépp lëf de ba nga xamee ne nag dem nañ bëgg ma tuñ nangootuñoo gëm bañ nañ bàyyi na yàlla nen na ma dal ubbi ci seen kaw nag mu bunta lépp lu nekk rek di daanu ci seen kaw de musiba yaa ngi wàcc benn par benn di jóge fu nekk bi jógee ci kaw bi jógee ci jaww yi bi jógee ci foo yaakaar rek ne boo demee fekk fa jàmm ba rek ngay fekk de ndax yàlla ubbi na la bunti xay yépp mu daanu ci sa kaw de abwaaba kulli shay mais ci wala fatax naa ñu ubbi aleem si ñoom abwaaba kulli shay in bunte bi lépp def ci ay xéewal ak itam ay ay xéewal ngir lan ngir gën laa jëy nga mën a eh, sax ci sa kéefar gi de su fekkee kéefar yaa ngi ni nekk fi nekk ci kéefar mu ne yàlla daf leen di yombalal seen yépp ubbil leen bunti wërsëg yoo xam ne ubbil leen bunti xéewal yoo xam ne bunti yooyu dafay ubbeeku ci seen kaw ñuy am lépp lu ñu bëgg lépp lu ñu bëgg a def rek seen àddina am ñu ko defee bu ko defee nag ci loolu la ñuy nekk ci loolu la ñuy nekk ci jëy ak yàlla googu leen di jëy ci la nekk xattaay daa farexoo xattaay daa farexoo ba neen déggee nañu ko nag xattaay daa farexoo ba neen déggee nañu bi maa utu ca la joxeef na leen ko am dëgg ak réylu su fekkee loolu leen yàlla jox na yépp dañ koo réyloo gis ne ñoo ko moomal seen bopp axas naahum ñu ci mbugal axas ñu jàpp leen ci mbugal baxta tañ ci bettel de suñ demee nag ba foog ne neex na yëf yi sotti na neex na bu ko defee nag yàlla bettee leen mbugal moo xam ne xaaruñ ko woon de loolu mooy yi nga xam ne yàlla jëyee na leen àddina bu ko nag loolu yépp ku leen di réeral ci jamono yooyu iblis moo leen di sànq moo leen di réeral mooy indi diggante doomu aadama ak doomu aadama jafe-jafe yi jaar diggante doomu aadama ak moromam yépp li ci ëpp rek boo demee iblis seytaane moo koy def iblis ak seytaane iblis iblis seyt ak doomi seytaane mi ak dëjjaal yi am na ay doom yoo xam ne sax doomi nit lañ dañoo gën a gaaw ci seen moromi nit ñi ak doomi seytaane yi yi yooyu yëpp lu ñuy fexeel doomu aadama mooy rek ne la iblis waxoon yàlla ne ko arayta hada alladi karamta alayya la in na ila yawmi alqiyamati la axtanikanna zurriyatahu illa qalilan ñii tax nga eh, eh, bàyyi seen bàyyi bàyyi bàyyi ñii tax nga toroxal ma ñoom itam danaa toroxal seen doom yëpp ba yóbbu leen safara lu dul ñu néew mooy ñi nga xam ne des nañ ci gëm yàlla rek te loolu jamono bu nekk mi ngi am jamono bu nekk ñu ngi am ñu nekk ci gëm yàlla ak lu kéefar tat tat ak seen i pexe lu mu bëri bëri ak seen xeex lislaam lu métti métti du tere rek waxtu wu nekk yàlla mi ngi desal benn groupe boo xam ne ci àddina ñoom dañuy méngoo yàlla dañuy nangul yàlla dañuy nangoo oote jëm ci yàlla waxtu wu nekk loolu ngi am de su loolu amutoon nga xam ne kenn ku nekk ci kaw suuf di màggal yàlla da jeex na fi bu boobaa àddina moo tax yonent mu ne àddina buy tukki du fekk ci àddina kuy wax laa ilaha illallah ñoom ñëpp yàlla yónnee na ngelaw lu sedd mu ñëw jeexal leen ñu dee ñoom ñëpp bu ko defee nag yàlla doo la jël àddina bi nag màbb asamaan si ci seen kaw indi leen ay jaaxle ay tiit yoo xam ne ay tiitaange yoo xam ne moo tax yaa su ayyuhan naasu taqu rabbakum inna zalzalata saati inna zalzalata saati mooy rëng-rëngi bés ci balaa bés ci ñëw coono yu jafe yooyu nit ñi di dund loolu moom jullit du ko fekkee fekk na jullit ñëpp dee nañ bu ko defee xiifal yi rek des na fi mu wàcce ci seen kaw nag mbugalam mbugalam loolu de mbugalam jeex ak àddina ci kaw xiifal ngi rek lay daanu de waaye jullit ñi ñoom dem nañ bu yàgg ci seeni i noppaluwaay xataa yi daa fare ko ba ndéem dégg nañu bi maa uti cere joxeet na leen ko ci ci rëy axas naa ñu jàpp leen baxtatan ci mbettel fay daa xam te la fekk hum ñoom mublisuna way naagu lañu de su ko defee nag boo demee ba nga xam ne nag yooyu amoon yëpp seen pexe yooyu yëpp jeex na noos bi yëpp jeex na alal ji yëpp jeex na addinaa ngi seen loxo li ci nekk yëpp amatu amatu amatu benn njëriñ su ko defee nag ñu dal di naagu nag xam ne ñoom kat fi nekk nii lépp yàqu na de yaakaaratuñu wenn xiw wu jëm si ci ñoom ndax jeex na lañ amoon ne yaakaar ne mooy xiw dem na ba lamp ba fay na fi mu ne lëndëm gaa ngi kenn dootu leen génn ci lëndëm googu faqta dogeef daabilul xaw bi mu jóg nit ña allazina ñaa ñu zalamu tooñ ne ñi nga xam ne nag ñoom ñëpp ay xeefar la ñu woon daañu tooñ yàlla ñoom ñëpp yàlla daal di leen buddi fañ nekkoon rek toroxal leen ñoom ñëpp yëpp ñi xarak leen walhamdu xaayi sant ñeent lillaahi ji sax la ñeel yàlla rabbil alamin kay aji moom mindee fi ndax dimbale na ay yonentam xalak na ay noonam de ah, noonu yonentam de xul waxal yéen solo waxal araytum soloti leen ma in axasallaahu neem demee na yàlla samaakum ay nopp seen wa absaarakum ak leeri gët seen waxatama tam kas ne ala qulubikum ci xol seen man ilaahun ana jën yàlla xayrullahi ju dumu yàlla yaatikum koog dana mu dikkee din bi ci moom de su fekkoon ne yee bu xat séefari màkka yi buñ xëyoon rek yàlla demee seeni nopp déggatuñ dara yàlla demee seen i gët gisatuñ dara yàlla dinkaañ seen i xol ba mënatuñoo dégg dara mu ne boobaa jën yàlla moo leen di delloo si loolu nga xam ne yàlla xaj na leen ko maanaam kenn mënu koo delloo si de yàlla yóbbu na ko jeex na amul jeneen yàlla ju mën a taxaw ne loolu yàlla yooyu def man yàlla ji mën naa ko dindi amul yàlla jo yàlla rek moo fi nekk mooy def kenn mënta dindi li mu def yàlla wax nañ wax nañu ay wax yu bari nit ñi yooyu bëj bëjjante bëjjante ñee nag moom nu leen neexee yàlla wax na nag ay wax ne man maa bind asamaan kenn mus ta taxaw ne déedéet yàlla bind ko maa ko bind kenn mus koo dégg de ak nit wax na ne maa bind suuf nit lu mu bew bew bew mus yàlla bindoo ko mën naa ko bind loolu kenn musu ko wax kenn musu koo dégg kenn musu dégg ne yàlla moo ko bindoon waaye diw nangu na ko ci yàlla ndax boobaa yàlla dootu amati loolu yëpp kenn su koo dégg de bon nag gannaaw loo xam ne eh, nangul nañ ko ñoom ñëpp nangu nañ ko yàlla moo bind asamaan yàlla moo bind suuf li ci diggante bi yàlla moo ko bind yàlla moo bind nit loolu yëpp nangu nañ kenn musta oote ne maa ko def kenn ta oote ne dëgg la yàllaa ko def waaye man dem naa nangu ko ci moom maa léegi maa ko moom kenn su koo wax bon nag yàlla moomu na bu fekkee demee na seen yooyu yëpp kan moo di dimbale delloo si leen yooyu mu deme kenn amul ku ko mën a def de unzur seetal kayfa nusarrifu naka ñuy biddalee al ayaati kawteef kawteef yi dafay tegtale wéet ak yàlla de seetal nañ leen di biddalee kawteef yi nga xam ne dana leen delloo ngeen xam ne yàlla moo leen bind yàlla moo leen moo ndax lii ñu jàng ci laayeen yépp boo ko seetloo da xam ne loolu yàlla wax ne moo am kenn mënu koo dindi loolu yàlla wax ne amul kenn mënu koo amal yàlla rek moo ko mën a amal de koo xam ne tiit nga jaaxle nga doonal xeefar ba gën a màgg amoo kenn koo jublu di ko ñaan lu dul yàlla nga jublu di ko ñaan iblis a ngoo ku njëkk kuy wedd yàlla <coughs> iblis mooy si sëriñ bon nag iblis moom ba ne ma xam ne amul benn buntu dafa taxaw si buntu yàlla rek ñaan ko yàlla dali koy may lim ko ñaan de loolu bon loolu kenn mënu koo weddi li yàlla wax ci laay yépp mais moom mooy defa dindi mooy jubal ku ko neex mooy mooy sànni ku ko neex loolu itam kenn mënu koo dindi ndax ay wax la yoo xam ne xel mën na koo nangu xel mu jub mën na koo nangu xam-xam itam mën na koo nangu waaye xam-xam nag xam naa xam-xamu technologie yu mel nii loolu xam-xam la waaye itam xam-xamu dem ci yàlla itam loolu beneen xam-xam la de te mooy xam-xam bi gën a dëggu ndax xam-xam yi luñ doon doon doon doon xam-xam am na jamono yoo xam ne dinañ tàggoog ñoom dootuñu dootuñu amal benn njëriñ xam-xam bi nga xam ne nag mu ngay aj ci yàlla waxtu wu nekk daf lay amal njëriñ ba ci sa biir bàmmeel daf lay amal njëriñ ba ngay dekki daf lay amal njëriñ xam-xam bi nag moom boo tàgg moom ci àddina rek jeex na amatul benn njëriñ de su mahum topp ñoom es defoo na danañu dëdd maa ngi leen di waxal man yàlla waaye taxul li ma leen di waxal yëpp ñu dégg ko ñu ngay daw rek di ma bàyyi xul waxal ne araytukum solati leen ma in ataakum ndem dikkal na leen azabullahi mbugalam yàlla baxtatan ca guddi aw jaxaratan ki ca bëccëg hal yuhlaku defut halak illal qawmum dara ñëw ñal zalimun ñu de way xéefar bu yàlla di indi mbugalam sawa un mbugal mi guddi la ñëw wala mu ñëw digg bëccëg la ak lum tat tat mbugal mi xéefar yi rek ci la jëm de ñi gëmul yàlla rek ñoom la yàlla di mbugal de waaye ñi gëm yàlla moom yàlla moom waxtu wu nekk mu ngi leen di sàmm ak sa càmmam goo xam ne mbugal du ak si ñoom de wamaa nursilu ñun de yónni mursalina ñu yónni ña illaa mubashirina ndara mbit mu ñuy way bégle ci aljanna ñeel ko gëm na mu wa munzirina ak mbit mu ñuy waragalloo safara ñeel ko xéefar na mu de loolu moo fi indi yonent yi ho bidalal nit ñi yoonu aljanna wu leen di yóbbu ci aljanna bi dalal nit ñi yoonu safara wu leen di musal ci safara de su ko defee nag loolu fu ko doomu aadama yi di amee ci loolu ndax yonent bu nekk boo ñëwee yàlla daf koy sant na wax jaamam yi defal lii bàyyi lii defal bàyyi loolu rek moom la yonent yëpp indi defal bàyyi gëmal yàlla toppal yàlla bul weddi yàlla bul mooy yàlla su ko defee nag su fekkee nangu nga nag gëm naa yàlla nangu naa topp yàlla bu boobaa yow ci defal nga nekk yaa ngi yaa ngi def su fekkee gëmuma yàlla topp ma yàlla bu boobaa maa ci bay tey bul def man maa ci bul def ci loolu laa nekk koo xam ne nag léeg mu jaxase fii jaxase fii léeg mu def nii léeg mu def nii kooku itam mi ngi ci buntu defal ak bu def ñaar yëpp la boole waaye nag yàlla ci ngënee la mbaaxam mën naa mën naa xoolee ko bëti li nga xam ne mooy bëti defal de amalu saalihan wa aaxara sayyi'an asallahu ña tuubaaleen te asa amut ci yàlla mu ne ñi nga xam ne boole nañ lu bon lu baax waaye dañoo gëm yàlla mën na am yàlla baal leen te yàlla du lu mu wax rek noonu la mu ne ba nag ñi ñi xaaj yooyu lañu rek ñi ñi topp di def ndigal ñi topp di def ndigal ñi juum di di juum di wàcc ndigal waaye léegi rek ñu topp ko ñoo ñu itam eh, yàlla moo méngoo seeni mbir de wa aslaha te xëyee na faman amana ku gëm na mu yàlla wa aslaha te xëyeenal xam-xamam bu sell jëmee ci yàlla falaa xawfun di ragal alayhim ci ñoom wala am déet ñoom yaxzanuuna ñuy way jàqalëg ci àllaaxira de képp koo xam ne gëm nga yàlla yàlla may ne la gëm ko mandargaay gëm yàlla war naa feeñ ci yow mandargaay gëm yàlla bokk na ci xam-xam xam-xam boo ko amee balaa xam-xam am njëriñ nga def ko jumtukaay boo xam ne da ngay xéwénal li nga xam ne yàqu na da ngay li nga xam ne baaxut di eh, li nga xam ne baaxut da koy xéwénal li nga xam ne baax na ba pare nga bàyyi ko ca baaxam ngay itam bëgg mu yokku de ndax lu baaxut mooy lan mooy lépp loo xam ne génn na yoon yi nga xam ne ci lañ ko jaarale na ko jaar ci boo ci boo ci boo ko génnee rek jeex na yàqu na bu ñu la waxee seet machine bi bu ko teg ci naaj wu tàng wi boo ko tegee ci naaj wu tàng wi rek ñoom la la taxoon ñu wax la ko da ko bis se lii dee ko defee nii lii dee ko defee nii yooyu yëpp mi ngi am ci àddina bi ñu ngi lay wax ne lii boo ko defee di nga ñàkk sa machine bi lii boo ko defee lii boo ko defee yàlla itam noonu la la defal ci sa dund boo defee nii baax nga aw nga ci yoon boo defee lii génn nga ci yoon yàqule nga boo defee lii nag di def lii léegi léeg nga def bii léeg-léeg nga def lii boobaa yaa ci suma nam nam man yàlla de mën naa am yàlla jéggal la mën naa am yàlla baal wala dina waaye ñaa ña kada bu wét nañu bi ayat ci alquran sunu jëma suum dana jot leen azabu ñi nga xam ne nag dañoo wéddi alquran weddi faw mu ne ñooñu yàlla dina leen mbugal de bi ma kaanu ca sabab si la ñu nekkoon yef suqoona di génn topp yàlla de ña nga xam ne gëmuñ yàlla xalaat nekk ay pasteur lu leen neex rek ñu def mu ne ñooñu yàlla dina leen mbugal de ba mu ko defee nag xéefar yi naka jekk ak yéej ji yonent yi di leen fontoo rek laaj ay kéemtaan ne yonent léegi mu ngi noonu soppil ñu suñ suuf si defal ñu lii defal ñu lii defal ñu lii soo bëggee ñu gëm la defal ñu lii ah, ah, lu nekk nu mu gën a jafee rek ñu laaj ko yonent bi ne defal ñu ko yonent ne leen man loolu taxuma laa taxuma jóg de xul waxal laa aqulu man de waxuma lakum yaar leen ne indi aji nekk la ci man xazainullahi ndam bi yërmande yàlla nekku ci man de yëpp man amewuma dara man jaam laa rek comme yéen dañ maa yónni rek ne naa leen wax lii dinaa leen ko wax bu ngeen ko déggee baax na bu ngeen ko déggut seen yëfi bopp la waaye man waxuma leen ne maa amee ndam bi yàlla yi di ko séet man yàlla yi di ko séddalee nu ma neex wala alamul xayba waxuma leen itam ne man damaa xam fàddu man xaw ma fàddu yàlla rek moo xam fàddu de wala aqul waxuma lakum ñaar leen ne man malakun laa waxuma leen man naa soppandiku ci ay mbir yoo xam ne yéen mbindéef yi mënu ko in déet man in in attabi'u déet may topp illaa maa yuuhaa dara la wax yoof na ko ila yee ci man de man waxuma leen ne maa moom maa yàlla yi waxuma leen ne man xam naa fàddu waxuma leen ne man xam naa man malaaka la yooyu yëpp waxuma leen ko dama leen a wax rek yàlla moo ma yónni li ma yónni loolu laa leen di jottali bu leen neexee ngeen topp bu leen neexee ngeen bañ a topp xul waxal ne fale sawi xemoo tit al ama aji xéefër <coughs> wal basiru ak ak ak aji gëm de xéefar ak jullit niroowuñ de ndax kenn ku nekk yaa ngi daw jëm ci sa muuj boo xam ne moom lañ la bindal xéefar a ngi daw jëm ci jëm safara jëm ci xalaku jullit a ngi daw jëm ci aljanna jëm ci ay bànneexam xéefar ak jullit mënuñoo bokk em xemuñ fii ci àddina ëllëg ci àllaaxira nag fa la ñàkk nga xam nga di gën a feeñee ndax fii ci àddina dëgg-dëgg boo demee ak li li li jullit ñi li jullit ñi li leen di dal métit yi leen di dal pexe yi leen di defal lépp lu bon ñu leen di teg waaye terewul tey lay gën a sax ci seen gëm yàlla li ñuy teg li ñuy teg lislaam ci façon bépp buñ ko mën a tegee diine buñ ko tegoon bu dul lislaam rek diine booba tas ndax seeni waa diine booba gëmeewuñ noonu ak ñu foofu ci gëm seen diine waaye pexe yi ñuy teg lislaam ak jullit yi ci jamono bii ñu toll seetal diine boo gën a óolu rek nga teg ko pexe yooyu teg ko ci seen kaw nga gis ne diine yooyu doo am ñaari fan daal tas lépp lépp ñu tasaaroo seeti leen de ndax seen diine yi ñoom dañ ko topp waaye ñoo la gën a xam ne ci seen biir xol ne lii ñu topp du dëgg diine yonent ji mooy dëgg de xam nañ ko bu baax a baax waaye nag bakkan ak rëy ak foog foog foog sa bopp ne dara nga mooy jaar seen digganteeg bañ a gëm bañ a gëm li leen yàlla sant yu gëm ko de a tatafakkaruuna lu tee ngeen ngeen xalaat ba gëm yàlla moo du ngeen xalaat yi ci leen woon yépp ba mën a gëm yàlla de wa anzir ragal loo xaal bihi ak alquran alladina ñaañee xaafuuna danañu ragal an yuxsaroo bu ñu fangee fa leen ilaa rabbihim jëy jëm ci waroom seen laysa lahum déet di ñaar leen min dunihi ku dumu yàlla waliyun aji dimbale jog dana mu dimbale leen wala shafiun du jàggan aji ramu de mu ne alquran a ngoogu ragal ragalal ñi nga xam ne ragal nañ ëllëg te seeg yàlla fekk ab te fekk amuñ fa dara ndax na nga ragal na nga ragal ñi nga xam ne ragal nañ bu ñu leen fangee ëllëg yóbbu leen ci kanam yàlla fekk fa amuñ fa dara amuñ fa ku leen di dimbale amuñ fa ku leen di taxawu amuñ fa leen ku leen di ramm ñoom ñee ragal loola ñooñu itam ba tey jàngal leen ci alquran ndax ñu yokk seen ragal de hmm? la allahum ndax tey ñoom yattaqu nañu ragal yàlla de gën leen a ragal yàlla rek door leen ragal yàlla wala tatruju lazina yaduuna rabbahum bil ghadaati wala si googu lu ko wasal wàcc na ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam daa toog benn bés mook ay sahabaam ñoom Bilaal ak ñoom Ammar ibnu Yaasir rek nit ñu ñàkk ñooñu amuñ dara kii dafay Quraysh yi ñëw ci moom ne ko ñun dañoo bëgg a waxtaan ngay waxtaan ak ñun waaye nag nit ñi rek nga toog nit ñu xesew ñi rek nga toog ak ñun mënuñoo toog ak ñoom ndax ñun ay kilifa lañ léegi boo buggee dàq leen ndax ñu ñëw toog ak yow de yonent yi itam loolu gis na ci moom munu ko ñemewu ko ñu ne ko fekkee gannaaw mënu leen a dàq bon bàyyi leen nga ñëw toog ak ñun nga waxtaan ak ñun boo waxtaan ak ñun ba pare après nga dem ci seen nit waxtaan ak ñoom loolu itam ya moom la ko yàlla di aaye de ne ko walaa tatrut bul dàq alladina ñaaña yaduna danañu jaamu rabbahum borom seen bil xadaati ca lëlëg wala si ak ca ngoon de mu ne bul dàq nit ñi nga xam ne waxtu nekk ñu ngi takkoog yow di eh, eh, di ñaan yàlla bu leen dàq benn waxtu bu leen dàq ci suba bu leen dàq ci ngoon de yu yi doona danañu namm ñoom ñooñu wajahu ngër ne yàlla ci àddina ak àllaaxira de ñooñu nga xam ne jëmme yàlla ji rek la ñuy sàkku ci lu def ñooñu bu leen dàq mukk laa dina ndax ñii de nekkal ak ñoom ni nga war a nekk ñoom de maa alayka déet di war la mi xisaabihim ci xisaab seen mi shay'in dara yàlla sant na la xisaab leen ci seen euh, mi shay'in dara seen mbiram baatin a am du yoo ne xéefar yi nangu wuñ ko loolu sa yoon nekku ci yow toogal ak ñoom rek takkoon ak ñoom guddeeg bëccëg de waaw min xisaabika déet déet déet xisaab sa alayhim ci ñoom min shay'in di doo dara de boo leen dàqee ba da xisaab ba dàq leen da nga xam ne loolu nga def yow du dara de fa turu doom ta nga dàq leen fata ku ne ta nga nekk mi ne mi di way tooñ de yonent dafa nettale woon ne ma bon du aay aayut su mën naa wéet ak xibaaru Quraysh ndax bu toog ak ñoom mën naa am ñu tuub te buñ da dañuy dolli ñuy doole bon nag loolu la loolu la loolu la xalaatoon loolu la xisaaboon ne mën naa am yàlla ne ko déedéet su loolu yëpp mën ta am de boo leen dàqee da nga ëllëg boo leen dàqee ndax loolu ëllëg yàlla dana la dana la ah, yàlla dina la boole ci tooñkat yi de te yonent warta bokk ci tooñkat yi de waa wa kadalika kem noonu ñu nattoo la baaduhum ah fatan naa la ñu nattoo woon baaduhum leen seen di baax diñ ci leen de naka noonu itam ñu nattoo la ci nit ñu suufe ñi ak nit ñu kawe ñi noonu lañ mus di nattee yoon yi passé woon te loolu yëpp taxu leen dellu gannaaw de ñoom ñëpp dañoo gëm yàlla de li lu ngir nañu wax haawulaay ñi le haawulaay ndax ñi le mën na laahu teewee na yàlla alayhim bay ni naa ci diggante sunu mooy ñoom ceefal leen ñu taxaw di xéemu moom miskin yu ñàkk yi nit ñu amul dara ñi nii yàlla bu wàcc xéewal ci ñii la koy wàcce bàyyi yu ñun ñii ñun diw ñun diw doomi dafa nga ne benn teranga bu baax dana am ci àddina kenn di ñu si njëkk teranga bu am ci àddina ñu ñoo si war a njëkk de waaye miskin yu bon yi nga xam ne amuñ dara mu ne loolu mënta am de teranga daal buy ñëw ci ñoom day jaar de moo taxoon ah, ñu ñu doon wax ca suratu ah, duxaan naan yàlla law laa nuzila haadal quraan ala rajulin min al qaryatayni azimin ndax gis nañ koo xam ne gis nañ ñoo xam ne ñoo gën a màgg yonant lu tax yàlla di leen fa bàyyi di wàcce alquran ci ñii moo tax nga xam ne waxi Quraysh ak yéefar yi seen wax ci alquran kenn xamul du muy tekki xam nga ñoom fonk nañu alquran ci ci laaye ji ba woone na ci ku kawe dañ ko war a wàcce ku tolloog moom bon gëm nañ ne alquran dëgg la bon gëm nañ ne alquran lu am la bon gëm nañ ne alquran lu kawe la de waaye bu leen neexee itam ñu ne koy in la illaa nu mubiin ne ko ah da nga nga rek doo moo tax seen wax ci dégg alaysa laahu déet ndax déet yàlla bi yàlla moomul ay joxam bi shaakiriin ci way sant ñu yàlla ñii sant yàlla yàlla moo leen kam yàlla ñu ci yàlla boole allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa amiin yaa rabbi amiin jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur Malben TV ñu doon bàyyi xel ci Malben lii dañ leen indiloon ci tafsirul alquran ñu àndanteeg euh, Cheikh Mouhamadou Maye ak Khalifa ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla yàggal ko fii may ko fanu gudd semb yim semb yëpp ci xadaratu Ibrahima yàlla ko yàlla sottal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di yàq di suba incha allah waaye nag di fàttali ci kanam tuuti rek dinañ ànd ak yéen ci li xam ne moom Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass jërë ngeen jëf ci teewlu